asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag su ngeen gisee fi ma taxaw maar ah maar tey mbuur lañ ne mbuur géej mais buntu kër bii ma taxaw kër la koo xam ne ni ci làmb la bokk nekk champion ci làmb waaye nag ngeen xamoon ko mu daan bëri tey nag gisatuñ ko mu ñëw luqati ko mu mel ni nag fi may dugg nii këram waaw su ma jëmoon may dugg nii ci kër gi la. Diop numéro 2 Omar Mbaye tey.

yow yaay way juru man Mansour Mansour Diop wala. waaw loolu yàlla dogal na waaw loolu yàlla dogal na. ñëwoon seet si ko rek. jógee ba Dakar ñu fas yéene waxtaan ak moom parce que dañ ko daan gis ci làmb léegi gisatuñ ko. waaw ma rafetlu ko trop nag rafetlu seen teewaay fii trop wax dëgg yàlla di ci kontaan tamit waaye yàlla mu dogal loolu mu daan yëngu ci làmb ah comme ni ko gars yi wax rek nag moo làmb boo ko ci nekk tamit yow war ngaa mën a def. am loo def daal la làmb carrière bi yàggul te bu jeexee la vie continue kon moom mu nekk ci loolu jërëjëf. gu ak Leewtoo TV du mën a ñàkk. fii la ñu mbër mi daal de mais kii moom mbër la. Sidi. nañ la. Sidi looy def Mbour. Mbour sama dëkkuwaay la rek. waaw. <laughs> da nga fay ñëw di waajal waaw ñëw fii day waajal sama bopp rek. ak ñëw suma kër grand Mansour Omar waaw nekk grand boo xam ne suma nit la. maag moom démb la woon moom moo ma dugal ci làmb waaw tamit moom moo tax ma bëre tamit ma amee combat mu ne ma kaay ga toog fii que moom xam na ma ma dama naa ko te comme que fee day xaw a xat ci ah, concentration bi ci war du ci am mu ne ma kaay nga toog fii nga préparer fii combat bu gënee jege nga doog a demaat jàmm gën waaw mais nag liggéey rek moo ñu fi indi. mooy préparer. Mamor Mamor bu Faas. Mamor doomu Faas moom laay préparé. jegeñante ngeen de Fass ak jàmm gi. waaw jegeñante nañ combat boo xam ne nekkul woon loo xam ne dama ko bëggoon au début parce que ja Fass ak jàmm gën benn la mais Mamor comme que moom nee na moom gëmul affaire jàmm gën moom doomu Fass la représenté la moo tax ñu jël combat bi daal depuis daaw. dama mu ne moom amul amul ak yow combat. waaw def na benn sorti wax loolu. yow bi ñuy def signature contrat bi je pense que fa la la fekk waaw. waaw kon man maa nga foon waaye moom nag nekku foon mais am na ko ko fa représenté woon. waaw ki ko représenté moom mooy Papa Gueye kooku moom mooy signé ay combat am waaw man contrat laa seq ak promoteur bi contrat laa seq ak moom aw lu may wax ak maam Mor li ma koy wax rek mooy na waaj ndax maa maa ngi waaj incha allah waaw. kon kon lu métti mbaal. non dina day am lu métti moom loolu jaru sax wax. waaw retour Seydi Diamaguène la waaw combat bi comme li may wax rek waa Diamaguène laa koy bëreel comme que nee na moom bokkul Diamaguène dinaa ko génnee Diamaguène waaw di wax waa Diamaguène yëpp nag xam nga di sàkku si ñoom si ñoom ñaan war dina euh, sama sëriñ sëriñ kon nag mbokk yi ah defe naa tey kii lañu seet si fii Mbour fi nga xam ne mooy quartier Liberté xam naa nag du Liberté yàgg maa kaar yi moom Liberté bi ci Mbour la Mansour maa ngi lay nuyuwaat. waaw alhamdulilah Babacar maa ngi lay fay. di kontaan ci ñëw bi ngeen fi ñëw di leen di leen bu baax di wax ni yow moom naa trop maa ngi di fay bu baax a baax. tey li tax ñu ñëw fii seet si la bokk na ci dañ la gisoon ci làmb ngay bëri ñu xëy a xëy ñu ne man su jub léegi baaseetul tul Dakar la basé ngay jóge Mbour di ñëw dakaar di bëri. yaa ngi bëgg na ñoo xam lu waral loolu bëgg na ñoo xam tamit sa carrière ñaata combat nga ciy bëri ñaata victoire nga ci am ak ñaata défaite waaw Babacar man euh, booy xool maa ngi dugg ci làmb 2005. cinq nga njëkk a takk ngeen. 2004 fin 2005 quoi 25 euh, décembre 2004 waaw comme presque 2005 la décembre 2005 waaw ci laa dugg ci làmb euh, yàlla dogal ma def ci ay combat def naa lu mot. jàpp nga njëkk a bëri. man soose bu faas laa njëkk a mu daan ma. soose la njëkk a actuel entraîneur bu Fass. waaw actuel entraîneur bu Fass moo tax des fois bu ma ko gisee muy toog ci siège bi dama koy mbalag rek waaw moom moom njëkk a daan après ma jógee fa euh, bëre ak euh, Bassirou Souare waaw bu écrit séeréer daan ko après daje cargo daan ko waaw bëri naa ak ay mbër yu bëri des fois da ngay fàtte quoi combat tool na ci ay quatorze combat quatorze ou quinze combat daal am ci ay de défaites xam nga kii bi palmarès bu doy waar la mais terewul tamit ah ma nekkoon mbër bi nga xam ni mbër laa bu ñëpp amoon ci man yaakaar xëy na des fois làmb dina toll ci moment boo xam ne ah, yàlla suñu boroom mooy wax ni du doon yow yàlla dimbali na ci sama carrière sama premier combat bu ci combat bi ma mujjee bëre amul benn combat bu may jël ñi xam làmb wala amateur làmb yi kii kii muy bëril moo ko mën à chaque fois rek dañuy da man maay nekk favori waaw kon nit laa woon boo xam ne bu fonkoon def la mais tamit bëri tey ay mbër yu mag yoo xam ne bëri ngeen ñu ngi ci làmb ji moo xam bébé Saloum la Zarko sax xëy na gisatuñ ko mu ngi àll eh, eh, eh, bitim réew ñu koy nuyu di ko jaar ak koo xam ne ni tamit yaakaar naa tey bokk na si ñu te làmb muy Lac de Guiers de mais ni mbër yu yëpp bëri nga ak ñoom comme loolu mooy confirmer ne yow maanaam làmb amoon na ci yow yaakaar. waaw parce que xam nga làmb pour nga léegi léegi la làmb yomb nii sax mën naa ko wax mais bu njëkk da ngay da ngay bëri mbapat ba ñu xam la nga soog a a dem arène. ci petit combat premier. premier deuxième troisième combat spécial soog a bëri grand combat waaw noonu la demee woon mais léegi làmb léegi yaa ma gën a xam ay lijjanti la waaw mais daal di sant yàlla bu baax. lijjanti di wóorul. di sant yàlla bu baax di ñaanal ñi nga xam ne tey ñoo ci nekk dama bëri woon ak ñoom. di leen yàlla defal leen sutura parce que tamit lu ci mënti doon lu ma doon ñoom la ñoom it lu ñu doon man la parce que dama déggoon benn paa mu ne fu ñu fu ñu remercier fu ñu waxee diw mooy vainqueur war nañ remercier vaincu bi parce que bu ñu woon vaincu bi kenn du xam vainqueur bi comprendre loolu moo tax ñun ñëpp benn lañ parce que ki ngay daan ba nekk roi des arènes kooku boo ko daanul woon doo nekk roi des arènes kon yow su roi des arènes moom daf ci participer waaw kon ñun ñëpp daal benn lañ yàlla suñu borom moo xam lu jot rek loolu lay def. roi des arènes bi Modou Lo ki nga xam ne nii nekk na euh, nekk na ko mosoon na ci jaar Balla gay 2 jaar na ci Bombardier ji deux fois yi kii Yékini ak ñooñu mais damay ñëw ci bàll ak Modou ñooñu ñaar bëri nga ak ñoom. non bëriwuma ak Balla bëriwuma ak Modou. mais Mbapat dajewu ngeen ci tamit. non Mbapat euh, bi Modou loo di jël drapeau 72 euh, heures Mbaye Guèye yi métrage di ko jël ci final bi boobu man ak métrage ñoo daje demi final waaw euh, Balla Gaye bëriwuñu mais yaakaar naa Double Less numéro moom laa bëree ci Mbapat te bi may bëree Double Less numéro 2 boobu ñu ngi bëree woon drapeau meeru Diamaguène Sicap Mbao mu daan ko. jour boobu Balla Gaye numéro un sax topp si na ma ba suñu kër récupéré ma yóbbu ma école am comprendre waaw mooy loolu ñëpp daal ay catégorie la génération lañ waaw ah, yàlla suñu borom nag moo wax ni ñoom dañuy continuer ñii dañ waaw ñii jaar benn côté bi. yow tey ñooñu ñooñu génération boobu ay yow Balla Gaye 2 Modou Lo Lac de Guiers kan moo ci dàq bëri. non Balla Gaye mën na bëri trop. ci dàq bëri laa wax. waxu ma ne diw mën na bëri dama ne kan moo ci dàq bëri xam nga ki ci dàq bëri bu ñuy wax dañuy wax Balla Gaye Balla Gaye de moo ci dàq bëri xam nga ki dàq bëri mooy ki ñëw di attaqué mais Modou Lo dafa naqare bëri maanaam ba ñëw ak sañ-sañam ñëw bëri si comprendre ni lii laa mën kon kooku da ngay woote da ngay wax ni dafa mën a bëri mais Modou Lo dafa nekk koo xam ne mën nga ko jekku ba yaakaar ni daan nga ko fekk daan nga ko kon ça veut dire kii da koy lijjanti mais kii daf ko mën maanaam Balla daa man muur day lijjanti. waaw Balla dafa mën a bëre même boo koy daan da koy daan ci mën a bëre mais Modou dafa mën a lijjanti combat mën nga koo mën fuuf mu daan kon ça veut booy seet da ngay xam ni kii dafa mën a bëre mais kii dafa mën nga jekk ko mu lijjanti ko. daal bu liggéey moom lu lëj mën na koo laqar ci. ko laqar ci mais Balla Gaye du moroomu kenn ci làmb ji waaw dafa trop. yaa yaa ko wax de. dafa mën a bëre trop génération moom dàq ko ci bëre yombul waaw génération bi ko ci bëre yombul léegi nga ñëw basé wu Mbour bi nga ñëwee Mbour après ñu gis sa lamb say combat xaw a wàññeeku wàññeeku lan moo nekkoon motivation bi taxoon nga ñëw Mbour toog fii. waaw bi may bëreeg euh, Zarko dafa nekkoon combat boo xam ne combat capital la woon comme tey ñu ngi naan combat bi da nga koy daan pour dem parce que bi may bëreeg Zarko maa ko mais boobu làmb commencé na di am ay ay ay lux mbóot parce que bi ma Aziz Ndiaye proposé Zarko dama ne ko du ma moromam lu ma utuluma la combat Zarko laay utal combat comprendre nga kon ça veut dire que moom wane na ni Zarko la bëgg mu bëre mais man intéressé wu ma comme làmb mooy sama xam naa ni Zarko maa fuuf ci làmb mais comme moom moo moo fi nekk pour ma bëreeg moom damay mu bi ma daanee. yaakaar naa sama combat ak Zarko ci la Modou Mbaye njëkk yor ko interview mu ci làmb moo ñëw jël sama open press boobu open press bariwul woon euh, Zarko ma après bi ma Zarko daanee mu bëri ñu ma doon jàppale ci làmb moo xam ni presque dañ daan gis sama photo ci journal rek woo téléphone téléphone yónnee ma xaalis ñooñu ñooñu dem ba su ma leen di woowee téléphone dootuñu mu jël bëri na ay ay nit lañ yoo xam ne tey Sénégal xam nañ leen comprendre bëri na ñoo xam ne dama leen daan woo dootuñu mën nangoo jël parce que nekko nekk nekk nekkatuma au niveau waaw parce que bëri naa daanu naa ma toogee ma xam ni carrément affaire yi mi ngi bëgg metti ci ki nga xam ni danga daan toog tabaski jot fi nga tëdd di nelaw ñu yónnee la ñaari yére wala ñetti yére nga sol dox say rakk ñu sol daawoo manqué problème mu xaalis xaru tabaski dañ la ko doon yónnee tey nga dem ba ñu ñooñu doon la ko def na tey boo leen woowee doo leen jot ma ne non fi mu toll nii nag dafa laaj ñu tourné xool beneen pexe parce que nit ki mën na laa yor mais sa famille yaa ko mën a yor sa bopp ma ne xaaral ko am naa métier xaaral ma dem ko ne sama métier ci laa waxtaan ak sama patron bi nga xam ne moom laa liggéeyal parce que man sama carrière combat bu ma bëree su ma koy jël day fekk maa ngi liggéey bu ma ñëwee ba combat bi des un mois ma arrêté. préparé sama combat bu combat bi jeexee une semaine après ma naa at sama liggéey léegi ma ne léegi man ki ma doon liggéeyal ma léegi pare naa pour ñëw Mbour parce que comme làmb ji moo ma taxoon ma ne du ma dem du ma génn damay def sa Dakar léegi naa pour ñëw Mbour après juste moom it mu accepté ma loolu woo ma ma ko ciy remercier parce que tey lu ma doon moom la tey waaw ma demee ba sama papa mën ma gërëm wala sama yaay wala kenn ku mënti doon moom la. waaw parce que tey li may jëlee xaalis pour di leen defal loolu woon moom du ma ko yàlla nag mooy dogal mais yàlla suñu borom à chaque fois waaw da koy jaarale ci moom mention spéciale àdduna gisuma lu ma ko ci gënal ko noonu la demee mu nekk di liggéey terewul tamit mënoo jékki jekk rek bàyyi làmb noonu damay entraîné ñëw mu ñëwee ma nekk ci écurie Bombardier dem waxtaan ak moom ne ko man dama doon bëre Dakar mu ne xam naa la donc du ma ñëw dem ci beneen écrit te yow nga nekk fi mu nangul ma ko jël ma def ma comme rakam ñu ànd man ak moom tout le ñuy nekk waaw mu am jël combat boo jëlee combat boole ko ak di liggéey parce nga ñëw Mbour fekkoo fi yaay fekkoo fi papa fekkoo fi bàjjen fekkoo fi da nga ñëw wut sa néeg comme da nga ñëw wut néeg nekk fi di liggéey waaw comme da ngay liggéey nag il faut nga respecter liggéey pour weer de nga am lu nga fay luwaas mën a am loo jëndee añ reer ndékki waaw te waaw noonu la demee ma nekk ci tax entraînement yi mu waroon demee dootu demee noonu mu bëre fi benn combat laa fi man ak Ibou Senghor mu daan ma ma continué sama liggéey waaw kontaan bi sama ba tey yàlla dogal na fi mu toll nii waxatuma waxi làmb. liggéey la. waaw man boulanger laa waaw. dégg naa fii chef nga fi léegi parce que chef d'entreprise mooy. ku yore société maanaam di liggéey loo di leen fay ci wàllum boulangerie loolu dëgg la wala déet. waaw yor naa boulangerie di liggéey. yaa moom boulangerie bi. waaw maa benn boulangerie laa am. na bu tuwooma Mbambar. non benn boulangerie laa am benn boulangerie laa am waaw. fii fii ñu la fekk itam yaakaar naa sa kër la yaa ko moom. sama kër la waaw maa ko moom parce que maa ko liggéey yàlla suñu borom moom dafa wax nit ki lu mu mënti am waxal dëgg yàlla sunu borom mooy dogal. sama kër la maa ko moom sama papa nga fekk fi mu toog mu di ci kontaan trop parce que nekkul ñëpp la ko yàlla jox ku sañoon nekk sa kër sa papa nekk fa kon ci sant yàlla bu baax di wax ne sama kër la sama papa ngi fi sama yaay ngi fi ngi sama doom ngi kon daal da nga bi yàlla defee nga ñëw fii liggéey ba yàlla ubbi buntu bi macha allah yàlla na yokku da nga jël famille bi Dakar indi leen fii Mbour parce que léegi nag am nga sa këru bopp sa yëfi bopp maanaam. waaw loolu laa bëggoon mais paa bi du ma ko may parce que bu ñëwee ñaari fan laajal kii non day jékki-jékki naan la waaw sama lii nii sama lii nii dellu waaw bu delloo dakaar def quelque temps nga fexewaat mu ñëwaat waaw maire bi tamit aussi du fi nangoo toog parce que xam nga rek ku nekk ak fi nga miin mais daal maa ngi naxante su ma mën daal lu ma gën ñoom ñëppay ñëw parce que li may ñàkk daal bëgg naa dinañ ci jox bu bay waaw moom ma gënal quoi. mu mel ni li nga loolu bu ñu toppee terrasse bi fi nga jógee fi nga si tey macha allah. mu mel ni am na lu muy jàngale ci maanaam est-ce que du jàngale ci mbër yi maanaam tey du nekk warul na rek làmb ji rek su dul làmb ji du sotti daal wala. waaw waaw dafay dafay nekk loo xam ne dafa war a nit ki da war a gëm sa bopp boo gëmee sa bopp tamit nga am nga am bëgg-bëgg mais bëgg-bëgg bi nga bi nga bëgg li nga bëgg na fekk mu jaral la fii kenn kenn ñàkkul bëgg-bëgg mais es ce que jaral na leen waaw man bi ma jaralee ma boot sama sac ñëw mbuur dama ko def bu ma ñëwee Mbour xaw ma fi kenn billaay walaay taalaay xaw ma fi kenn ñëw ma ci kër mbokk ñëw ma ci kër xarit place bi muy liggéey daal laa laa ñëw su ma liggéey wàcc nekk fi ba keroog yàlla dogal may dem ba am sama néeg am sama appartement am sama kër te ñaan yàlla a amaat yeneen. est yeneen kër. waaw yàlla suñu <laughs> ah, bëgg naa ko de. est que amul ba pare. ko bëgg naa ko. Ah, na la ko yàlla may te may ko ñëpp ñi ko bëgg. amiin waaw amiin parce que àdduna moom euh, li ñuy wax naan ku am benn boo soñoon da ngay am ñaar waaw ci lu baax benn affaire boo am bu baax ñaar yu baax moo ko gën waaw kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey te à chaque fois ñi nga am ñi am ay ambition dañuy ñaan yàlla kër yi nekk ay këri këri kër waaw. boulanger yokk boulanger yi mel ni tamit yaa ko wax yaa ne ñaar ñaar mel ni benn soxna nga yor. waaw benn soxna laa yor nag. mais xalaatuma ñaan nag. parce que man photo may gisee ndaam yi fa gis ñu def lan aw buuru këram xaritu jëkkëram dama doon jég aw buuru këram tout court ñaareel xaritu jëkkëram mais moom dañ caa yokkal dañ ko caa yokkal xaritu. boo bëggee mooy lépp waaw mooy lépp parce que ah, bi may nangul jafe woon na trop. am na photo bu ma gis sànq yi maa ngi ko gis mu ngi tuuti mu mel ni ñaar xaw ngeen yàgg de. waaw loolu moo loolu loolu photo boobu mooy jour bi Balla Gaye daanee Bombardier non bi Bombardier daanee ñu defoon ko meilleur lutteur de l' année euh, grand théâtre waaw photo boobu foofu la woon comprendre nga sax ñoo toogoon nii dañoo jël photo am ak boole ko comprendre nga daal nit la koo xam ne bi ma nangulee jafe woon trop. fii nga ko xamee. waaw fii laa ko xamee. Mansour yow mbuur kan mu ah! mooy dogal. <laughs> mooy dogal yàlla mooy dogal. waaw mbuur seen dëkk bi am na barke kat ndekete. yàlla mooy dogal de. yàlla mooy dogal yàlla kay ni muy dogal sax daa doy waar. nit ki fii ngay juddoo fi ngay dëkk. waaw fii ngay suur man andi ma mbuur. ah waaw maa ne di ko mbuur. ah ñëwal <laughs> ñëwal mbuur mbuur mbuur nag dëkk boo xam ni euh, bi ma ñëwee mbuur bi ma toogee Bombardier premier jour ñu gisante dana ma mbuur dëkk la boo xam ne dëkku gan boo gëmee sa bopp mën nga fi am loo man mi sax du am. mu ma trop mais xam naa dem naa ba ci biir ma xam ne dëgg la waaw. mel ni moom tamit seen relation sincère na de yàgg Bombardier waaw benn lañ benn lañ parce que tey mën naa ni bari na ñoo xam ne sax pour ñu jot ko ci man la jaar yàlla suñu borom mooy dogal yàlla mooy dogal muy ku baax koo xam ni tey euh, mel ni moom yombul xëy na nit duñ ko sori doo ko xam waaw man wax dëgg yàlla bi ñu xamante ba léegi du question daf ma jox wala ma wala ma jox ko wala léegi lii mais xam naa ne daal nit ku mel ni moom jafe na parce que dafa mën a joxe nekkul daf maa jox de mais dafa mën a joxe parce que bët day natt waaw te nit ki sa li mu lay jox à fois booy xool ci biir lu bari bu demee ba ci kanam da ngay xam ni carrément kii li may jox dëgg la parce que dama ko fekkee à chaque fois mu nekk nit ku ñeme njaboot waaw nit la ku ñeme njaboot koo xam ni tey mënoo dem këram. te fekkoo fa lu mat fukki nit wala juróom-ñaar nit yoo xam ne dëkkuñu fa te fa la ñuy añee. dégg naa loolu moom dégg naa ko ci kurul yow. waaw wax nii dégg naa ko ci moom ci kurul yow. këram bu añ jotee waaw mbana lay mbana mën naa ne mbana mën naa ne mbana la ñuy teg waaw mën naa ne mbana la ñuy teg. léegi fi ñuy jeexale mooy Sidi Diamaguène fi laa ko fekk sa booy la maam moo rek bokkoon ngeen benn école les Tigres ñoom ñaar ñu war a bëri yow nga jël kii fat kële moom gisuma ko te daan naa gis ngeen daan ci làmb lu waral loolu. waaw gën a jege gën a yey. Siré la gën a jege. waaw benn paa nee na jege amee sa sëriñ dafa am maam Mor sama rakk la parce que bokkoon naa ci nga xam ne su may bëri day topp suma ginnaaw mais kii dafa bokk ci man mu bokk mu nekk jàmm gën su bëggee bëri man maa tax yaayam jàpp ko sama ci loxo indi ko sama kër jàmm gën waxtaan mu ne ma liggéey bi kat respecté tu ko parce que làmb jéeg yooyu léegi daal comme moom loolu bëgg mi ngi say loxo waaw loolu nag dafa rëy. nga indi ko fii pour mu war a mu préparer. non mu am combat euh, bu nekk combat bu am solo ci moom te comme ñun nekkuñu yàlla ñu ko jox ndam li ñu mën rek xool li nga xam ni dina dina nekk ay avantage ci moom bu ñu ko amee ñu mottali ko waaw loolu kese la parce que bu tooyee fii dina mën a dem entraînement tout le ñëw te du am benn problème. li ko dal Mbour du la fi dal. li la fi dal du ko fi dal. ah waaw mais dara lool loolu ku bëgg na ko. Ah, kon de yàlla na ko arrivé. yàlla na ko arrivé. mais bëgg nañ ci yow. maa gën a bëgg. maa gën a bëgg. billaay kontaan naa trop waaw. waaw di leen sant bu baax di leen remercier. waa di wax ni kontaan naa trop. bu leen neexoon yow it waaw di nga dugg mbuur te a xel dem ci man mais yàlla dogal na saa yow duggee mbuur sa xel dana nekk ci man kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm wax ne àdduna lii dama lañ fi am. parce que loolu maar boo gisee muy am mooy fi ñuy jeexale mooy dafa nekkoon ci làmb nekkoon mbër ñu amoon ci moom yaakaar te olof a ko wax mbaam gàtt na waaye ci jur gi la li ci des tamit li mu def nii dafa nekk loo xam ne mbër yi war nañ cee yi parce que li père Max Mbargane di wax rek làmb tegandaay la boo demee ba mu man laa yor jàpp ca waaye nag boo jàppee ni mu laa yor jéem a la jóg ca teel nga wuti leneen ndax nag fagaru moo gën faju yàgg ma yàlla ñëpp am jàmm